jërë ngeen jëf mbokk internautes yi ñuy topp ñoo ngi leen di nuyu di leen eh, ziar bu baax a baax ñu ñëw ci épisode épisode 53 bu Babel donc ñu ñëw ci série boobu nga xamante ne eh, dafay dajale dafay boole eh, ci génération yu wuute donc muy ëttu Babel tey nag gis nañ épisode 53 bi gis nañ que ne faa lañ moo démasqué ki nga xamante ne mooy bam bi bi nga xamante ne moo ñëwoon rek ngir lan ngir tas kër.

Euh, fexe ba fa piège ki nga xamantene moy euh, Bambi ci euh, ndaje famille bi ñu doon amal pour lan pour intégrer ki nga xamantene moy petit papa ci famille bi mais malheureusement pour Bambi delu ci parce que fa il est elle est très intelligente donc bi mu ñëwee ay document am la dajale yo xamantene ne kenn bindu ci dara mais dafa jóg napp Bambi mo khalil ne ko da nga falsifier li nga xamantene moy test ADN bi ba tax Bambi daal di tiit daal accepté que ne moom moo def lu mel ni après par la suite ci la xam ne que ne euh, loolu lépp euh, dañ ko doon piéger donc euh, loolu moom moo am waaye ki nga xamante ne mooy bàyyi petit papa tamit dugg ci kër gi donc ne moom moo jur xale bi laa Thiam tamit ñëw xam ne dañ ko nawtaloon ki nga xamante ne moo ko démasqué tamit muy jabaru Omar Thiam Euh, beneen euh, biñ gis si série bi tamit moy ka fa euh, Pape Khalil tamit défier na ki nga xamantene moy mooy ji muy njuga ci am ndax Khalil da fay jënd kër gi je pense que ne loolu mom moy am parce que yaayu fa moom moo koy influencé lu bari bari ndax aujourd'hui Khalil dina jëlati ay responsabilité am jënd kër gi yaakar nañ né non lay démé Khalil day jënd kër gi c'est exactement non lay démé im Ibnu Thiam moom moom mooy saraxu kër gi moom moom ndeysaan dañ ko liggéey ba xamatul fu ñu taxaw bëgg baam bi tout peut-être am na 500 moog ah, mook ñu bi donc li leen di ëllëgoon wéy di like di commenter yaa ngi jëf.